gars yi ñu ngi leen siwaar bu baax di dox ngeen dal jàmm sur les sports 221 doublé kon attaquant guinéen ya, boobee kat mi ngi en ah, forme mi ngi wane boppam clubam bi mooy Stuttgart actuellement sax mooy meilleur buteur ca Bundesliga 5 matchs 10 buts pour l'attaquant guinéen ya. Jesse Lingard mi ngi cooratuli ci Ettifaq waaye dina fa amal ay tàggatu benn weeru bu lëmb bu lépp yémbee nag ba mu dal seen xel club bu Gérard bi mën ko sagloo ci mu contrat portier niçois biir mooy Marcin Bulka moom dafa wane boppam ñaari planti la arrêté benn mooy américain Florian Borengak moo ko dóor waaye kat Monaco de Krépin-Diatta Ismaila Jacob dañuy mujj nërmeelu 1 bi à 0 kon OGC ni actuellement ñooy leader provisoire ci Ligue 1 UB it Cristiano Ronaldo amal doublé kon kat voilà Jacob le meilleur jour et que sax l'un des meilleurs joueurs sax la ñuy wax ndax yaa Messi kon moom kat mu ne ñi nga xam ne doon nañ ko waxkat jeexal na et que moom saay bu duggee tee rek ba nekk ci ay joganteem et que sax moom dafa wax responsable yi al Nassr kat fa la jëlee retraite bu ci at al atam Sadio Mané ci premier bii benn seet sa dugal nag moom moomal passe décisive contre Diouf dafa Massi 3 et que sax seen tenue traditionnelle yi ngeen di gis noonu kat Sadio Mané sol kat de même que le quintuple bu Ballon d'Or loolee dafa doon mandargaal seen fête national foofee ci Arabie Saoudite Barça nag ñàkk na Victor Roque benn dafa amee gaañu gaañu ci cheville bi lañ ko gaañ moom mel ne les Blaugrana teg nañ ci table 30 millions d'euros moo dara ñëw seen hiver waaye ndax naa toog 8 Julde Bellingham moom entraînement Real de Madrid voilà dafa mujjee jóge ndax kat dafa amee mettitud biir Thierry Henry mu ne France nag ñoom amuñu reconnaissance ci carrière mooy que après carrière jour yi nga xam wane nañ seen bopp avec la tricolore Kroos Modric ñoom kat kontaan nañu dara seen situation kon ñoom liñ bëgg mooy ñoom am plus de temps de jeu ñu wane seen bopp comme ni nga daan defee waaye nag ku xam Ancelotti c'est la jeunesse et que Real de Madrid politique boobee la ñuy doxalee. buñ moywul nag déwén dinañ fa quitté wala bokk ci mercato d'hiver bi Pep Guardiola ci nga xam am nañ gaañu gaañu ci Man City mu ne Kovacic si mu ngi ci yoonu ñëwaat nga dinañ xam ba xam sa samedi Grealish nag mën na jouer ay minute mu njëkk voilà sa samedi contre Nottingham Forest de Cheikhou Kouyaté Real de Madrid am na léegi 500 millions d'abonnés bu ñu bu ñu toppee seen réseaux sociaux yëpp kon voilà un des plus grands clubs au monde Daniel Levy mu ne nag dafa def erreur ci Mourinho Conte ñaar ñooñee kat ay manager yu xarañ ci lu ñuy amaloon waaye nag ñoom dañoo bëggoon gagné kut ku kut waaye ñoom ñi nga xam ne voilà waa Tottenham noonu lañ bëgg ñu doxale ñoom dañoo indiwaat beneen philosophie ba tax na kat mën naa ne compatible wun ak ñoom seen bëgg-bëgg bi bi nga xam ne Tete dugal na ko Galatasaray moom lañ tabb bi bi ko ci première journée bu Champions League Jadon Sancho moom kat voilà liñ fësal mooy que kat dañuy xaar dañuy xaar moom mu indi ay jéggalu jëmale ko ci Erik ten bu ko defee ñu mën koo baal et que liñ fësal sax mooy que yenn ci ay jours d'accord ñu ci sanction bi teg nañ ko ci yoon boobu angale boobee dootu mu biir moo la ko jaay waa Manchester United ñoom pare ñu benn yoon pour mën ko jëndaat club yam lim nañ leen nag mooy Barcelone. Ange Postecoglou gulubéem ci mois bi moom lañ tabb coach bi gën a xarañ ak waa Tottenham mu ne seen joueur bi war amal contre Arsenal ndax dañuy jouer ak neneen dañuy ñëw défendre mu ne ñoom kat dañuy jouer ak sax faire peur aux Gunners Michael Arteta mu ne kat David Raya actuellement kat moom moo gën a xarañ Aaron Ramsdale bi am na la la dernière moo doon titulaire waaye depuis que le portier espagnol ba mu utali foofee ca. voilà Sele Gunners kat jël na place doomu anglais boobee Sergio Ramos Mariano Diaz ñoom seen coono bi ñu war a amal contre Osasuna ak Séville kon ñoom kat voilà duñ ko mujj teewee ndax kat dañoo amee fatigue musculaire Arda Güler ñëwaan na ci entre yi doomu Turquie boobe dafa amee woon gaañu gaañu Séville xaatimaa na contrat bu bees ak waa Barça ba 2025 l'international sénégalais Sada Thioub bi nga xam ne ñu doon sa. Saint-Étienne fi moy Un jeu actuellement agent libre kon ci xibaar yi voilà ay club Ligue de même que Belgique ñu koy suivre bu Lamine kon la Gambien bi Al Hilal et que mu Grenoble en Ligue 2 française contre la pour que Nicolas Jackson et un grand joueur. jot naa waxtaan ak moom ndax kat am na ñeenti carton jaune ginnaaw ba waxalee ak arbitre bi mu ne nag benn attaquant la bi nga xam ne euh, xam na ni benn ndaw la kon voilà un joueur fantastique kon li bëgg mooy calme et mu boppam ci ay jowanteem Sénégal Mozambique mu jur tembo un but partout foofa ci stade Diombo Lat Dior luy soxla premier tour pour qualifier CAN Maroc 2024 ak seen course bi mu yëkkati ci kàddu mu ne ñëpp xam nañ léegi leen war nag bu bëggee dem ci ñaareelu tour bi mooy ñu dem ci Mozambique am fa benn résultat bu positif mooy que ndam nombre de buts à l'âge de 22 ans mooy que bañ amee ñaar fukki at ak ñaar kon Lionel Messi jotoon na dugal 44 buts Cristiano Ronaldo 58 ak jàpp leen bu baax Erling Haaland actuellement buts buñ moyul dina dina romb roi pële bi nga xam ne ci liñ fësal mooy que moom moo ëpp lu mu dugal nga xam ne bi yom ne décompté wuñu ko waaye taarix li wane mooy que c' est le plus grand buteur de l'histoire du football. et que gars yi boo leen seetloo naam Kylian mi ngi amal ay but ca Paris Saint-Germain de même que avec la France waaye mosul teg ku franc kat dugal ko kon loolee kat du forum. Kalidou kulibali, ci Lamine Camara mu ne amna yen na yenn nak yi nga xam ne nag boo ca tolloo da ngay may jeunesse bi kat ñu ñëw wane seen bopp mu ne nag na lol jeunes yi nga xam ne kat ñu ngi eh, fëgg buntu l'équipe nationale du Sénégal et que loolee kat dinañu voilà dinañu indil ndimbal ci équipe nationale bi David De Gea nag mi ngi mi ngi bu baax nag mu jël retraite bu fekkee amul club naam doon nañ ko cité Betis Séville antagul. kon moom mii ne fanweeri at ak ñett la am buñ moyul nag dina jël retraite am Babacar Ndionkou Ndiaye ailier bi nga xam ne balaa ma nga juddu ci atum 2005 ca Fasada kon moom ma nga joon ci U18 yu Real de Madrid dèjà convoqué nañ ko ak U17 bu waa Espagne kon Sénégal nañ baral seen jéego waaye nag moom mosul nëbb kat voilà cofeelam bi am na ko ci pays nataalam bi nga xam ne. mooy Galsen et actuellement sax mi ngi jogante ci Youth League bi ak cette saison ak Real de Madrid 5 match jotoon naa dugal juróomi but amal ñaari passe décisif Pape Demba Diop kon jàpp leen le milieu terrain sénégalais de Zourde Volengeng boobee seen jëm ñoo amal contre Genk sorti sur civière moom kat dina toog ay mois yu bëri kon ñu souhaité que prompt rétablissement ko mati mi ngi lay 80 millions d'euros bu ko defee kat barça mën jënd zawo felix bi nga ma ngay wane boppam avec le les martin odegaard moom kat signé na contrat bu bees ak les gunners dafay dem ba 2028 mu dugal 5 but amal benn passe décisive mam baba thiam de kayseri sport moom kat bëgg-bëgg mooy mu ñëwaat en équipe nationale du Sénégal et que nag forme bee di war mel ni mi ngi inquiété bu baax a baax ndax l'international sénégalais bi encaissé na 12 buts ci ñeenti match yi mujjee joŋante. comme ni koy waxee mooy que meilleur gardien kuy góol yow yaa encaissé gis nañu André Onana bi nga xam ne mi ngi encaissé naam waaye ba mu delloo ca Cameroun ak Burundi mën naa ne sax li tax ñu qualifié moom la ndax premier mi-temps bi. avait sorti pas mal de prates. kon a moins que voilà bu ñu enterrer nos jours ñun ñoo leen encourager naa mi ngi c'est à nous de la réconforter ndax voilà championnat bi kat li ci l'ol ouais quest lool waaye gis nga muy Beaucoup rek bëgg sul bëgg réunions des li xewoon démb déedéet waruñoo nous toujours Edouard Mendy à notre soutien club bu Habib Beye ma ngay wéyale yoonam ndax bi mooy seen juróom cinquième victoire consécutive jàpp leen kat ñoom ñooy leader ca National Une bi en France kon Habib Beye mën naa ne voilà l' apprentissage continue ndax moom jege woon na lool sax yéeg ci Ligue 2 bi ginnaaw ba mu terminé troisième ñaari nag ñoo mujj yéeg